kon nag li nga xam ne nag mooy li nga xam ne Cheikh Maodo Moutakha mi ngi ko ci fàttali di ko ci bàyyil waxe taalibe yépp mooy nee na nañ xam ne ndax màggal gi tey ren dafa tombe ci li ñuy wax contexte waxtu wu xat mooy wér di gi nga xam ne suñ borom du ko wàcce ci kaw jamono te moo xam la tax mu def ko ndax yàlla kenn du ko laaj lu tax ba ca si mooy fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun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 bu ngeen gisee mu def ko daa bëgg woon nit ñi aw yoon mais sëriñ bi ku ko xam-xam ne weesu na foofu amul lu muy ragal ci àdduna ku ko kuy dund moom xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha dund la yemel ak leneen naka jëkk nag njëkk muy doo toog jotaay bi Sëriñ koo xam ne sabab yi nit ñi baaxoo def naan ku ko def gudd fan ku ko def naa nga mucc ci nangam ba mu xàmmee ba nëgë ni mësu ko def dafa jël léppam jooyal ko ci yàlla jël léppam jooyal ko Sëriñ موسى جفنكو در لويس القرآن أقصد أقول ما خص أك أك أك أك أك تدري على كون كان فوق خم جانا رجل جامعه كون بعدين كيسا مودو كده دايون نيني أويون كون نيانا مين كوي دقيقة تالي بسين تواي كون نيني تام تا أب تالي بين وورت تانل بفهم لكو أبصر نيم تانل موي لجن تيمو الخير في مختاره المختار لا في الذي نفوسكم تختاروا جانغورو جي امناك اموتو جيب بو سون يونيو ndax ñëpp mënaluñ seen bopp ndax am na ci ñoo xam ne euh, bu ñu amee luñ lekk tey mën nañoo bañ a am luñ reer kooko masque yombut ci moom boo ko ko diggalee dana jafe kon sëriñ bi nee na mu ngi diggal mboolem taalibi sëriñ Tuubaa yëpp kenn ko ci ne lu ci waay man ci jënd ay masque def ko àddee sëriñ Tuubaa joxe ko ngir jàppale ko ñi ko seen ñi nga xam ne seen kattan ak ndegam natt nañ boo wax ne màggal gi daaw lu mat juróomi million yi daje na fi sëriñ bi nee na bu néewee ba néew bëgg na taalibe dajal lu mat juróomi million masque tasaare ko am na sax ñu ko tàmbuli kon sëriñ bi nee na mi ngi koy digal taalibe yëpp ñu góorgóorlu ci dajale ko jébbal ko ko am na commission bu koy dajale ko mën a yóbbu ci kër sëriñ bi nga yóbbu ko fa bu dul loolu itam eh, jox naa ndigal sëriñ Ousmane ñu def taxawal benn eh, commission bu yaatu.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 comité bi jox naa ndigal Serigne Ousmane mu jox ndigal commission bi nga xam ne moo yor wàllu culture ak communication Serigne Abdoul Ahad jiitu ko ak commission bi yor wàllu santé te Serigne Cheikh Abi jiitu ko ñu dajale benn commission boo xam ne dañ ci dajale borom xam-xam yi nga xam ne ñoom la seen xel xam-xam màcc ci wàllu wér-gu-yaram ngir ñu gën a ñaax nit ñi soññ leen ci taxawaay ñu war def ci màggal yi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 ak ñu seen xam-xam ci wàcc euh, màcc ci fànn googu ñoom itam ñu góor góorlu ci liggéey booba ba soññ ci nit ñi ba taxawaay bi gën rafet bu baax a baax